alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala allahuma la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim allahuma allimna ma yanfauna wanfacna bima allamtana wa zidna ilma allahuma aftah alayna barakatak wansur alayna rahmatak biquwatika ya dal jalali wal ikram wala xawla wala quwata illa billahi alali alazim allahuma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxasna ida chita sahla fa allahuma sahla muyassara ya rabbal alamin mbokk ñu leen di nuyu di leen ziyaar di ñu jéggal tey ñu fas yéene dellu si ci axaadis nga xam ni doon nañ ko jàngalante yu jëm ci mbiru diine te nga koy tibbee ci ahadis yi nga xam ni imaam nawawi rahmatullahi moo ko dajale mu mel ni ci jotaay bi weesu ah, jëloon nañ xadis bu njëkk bi ak xadisu ñaareel bi ba leeral ko te incha allah dañuy ñëw ci xadisu ñetteel bi xadis ñetteel bi ba tey Omar ibn al-Khattab moo ko nettali wala boog euh, doomu Umar ibn al-Khattab moo ko nettali an Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul buniya al-islaamu ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqaami salaat wa itaa'i zakaat wa xajji al-bayt wa sawmi ramadan mu ni Abdullah ibn Umar radiallahu taala anhuma moo nettali xadis bi abdullah moom dafa bokkoon ci sixaaru saxaaba ci ndawi ah, saxaaba moom moo nettali xadis bi ni déggoon naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni buniyal islaamu ala xams lislaam dañ koo tabax ci juróomi keno lislaam dañ koo tabax ci juróomi keno shahaadati an laa ilaha bi ci njëkk mooy seede ni amul benn buur bu yeeyoo jaam bu dul yàlla wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu te seede it ni muhammad ab jaamam la te am ndawam la loolu mooy bi ci njëkk tudd baati seede yi te tudd baati seede yi mooy charte ci yeneen yi mën a baax maanaam nit ki li fekk tuddul baati seede duñ jàpp ni kii ab jullit la kon même bu dikkee yeneen ponki lislaam yi du tax yeneen du tax ñu nangu yeneen ponk yi wala boog du tax mu wér koo xam ni tuddul baati seede bëgg ñëw di julli kooku bu jullee julleem baaxul bu nattee asaka asakaam baaxul bu ajee ajam baaxul bu wooree weeru koor it weera woor gi mu woor weeru koor baaxul kenn du ko nangu ndaxte loolu lañ war a njëkk nit ki la war a njëkk jiital ponk bi ci njëkk mooy charte ngir yeneen ponk yi mën a mën a baax te mooy seede tudd baati seede yi seede ne amul benn buur bu yeeyoo jaamu bu dul yàlla benn buur bu yeeyoo jaamu bu dul yàlla loolu lay firi laa ilaha illa allah laa ilaha boroom xam-xamu nax wi dañ naan loolu laa googu mooy laa annafiyatu lil jins laa gi nga xam ni day dàq mboolem xeetu la nga xam ni baat bi ci topp maanaam mboolem xeetu baat boobu ilaah mooy ab yàlla lépp loo xam ne nit ki da koy jàmm ab yàlla lañ koy jàppee ilaah moo tax ilaah mën na doon mën nañ ko jigéenal ilaaha maanaam ab yàlla bu jigéen mën nañ ko jamo aaliha maanaam ay yàlla te day ñëw ci alxuraan baat bi day ñëw ci alxuraan lu bari fama axnat anhum alihatuhum allati kaanu yadcuuna min dunillahi min shay maanaam seen yàlla yiñ daan jaamu jariñu leen dara dara dara dara wa jaawasna bi bani israil albahra fa ataw ala qawmin yackufuuna ala asnaamin lahum qaalu ya muusa jacal lana ilahan kama lahum aaliha suñu borom nee na waa bani israil bi ngi leen jaralee ci ndox ba noppi dañoo ñëw fekk ay nit gis ay nit yu jaamu seen yàlla ñoom ñu ne Moussa Moussa defaral ñu ab yàlla ni ki ñëwee ni ñu amee ay yàlla ñu gis ni foofu yëpp suñu boroom day jëfandikoo baatu ilaah xërëm yi sax suñu boroom ilaah la koy wax walla aliha ay ay yàlla loolu lu tax ndaxte baatu ilaah dafa jóge ci aliha yàllahu mooy maanaam jéng na jëm ci dara wala boog jaamu na nit ki bu jéngee jëm ci dara sopp ko di ko jaamu dañ naan kii loolu lay jàmm nit ki bu tegoon ab xeeram di ko jaamu dañ naan loolu yàllahu ilayhi da koy da koy jaamu ilaah nag mooy loo xam ne dañ koy jaamu kon nit ki lépp loo xam ne da koo teg di ko jaamu ab yàlla lañ koy ab yàlla lañ koy wax moo tax suñu borom bu nee laa ilaaha amul benn yàlla foofu am na luñ fi war a dogale ndaxte suñ borom dàqul ni am na yeneen yeneen yeneen mbir yu nit ñi di jaamu ndaxte am na nit ñuy jaamu ay xërëm am na nit ñuy jaamu weer wi am na nit ñuy jaamu jant bi am na nit ñuy jaamu ay nit loolu la fekk ñoom ñu jaamu loolu rek seen yàlla la waaye nag yàlla bi nga xam ni moo yeyoo jaamu jaamu ko di indi njëriñ ñàkkaa jaamu di indi lor loolu yelloowu ci kenn ku dul yàlla kon laa ilaha illa allah mooy euh, laa ilaha yastaxiqu l ibadata bi xaqin illa allah maanaam amul benn buur bu yeyoo jaamu ci dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla benn buur bu yeyoo ci dëgg dëgg wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay seede it ab jaamam la ab jaamam la te ab ndawam la lum yóon lum yónni ci nit ñi ak jinne ñi jinne yi loolu mooy baatu sedd yi te mooy charte ngir lépp lu nit ki lépp lu jullit bi di def moo xam ci xeetu jaamu yàlla yëpp moo xam julli la walla woor ak lu munti doon wala aj faaw mu tudd baati seede yi bañ seddal ko ngëm mu doogu mën def leneen lu dul loolu bi ci topp mooy iqaami solaa taxawal julli bi ci topp mooy taxawal julli juróom loolu mooy ñaareelu ponk ci ponk lislaam maanaam képp koo xam ne bàyyi nga julli daa mel ni yow màbb nga benn ci ponk lislaam ndaxte julli borom bi subhaanahu wa moo ko farataal ne wa aqiimu salaa te lim ñëw ci alxuraan bëri na wa aqiimu salaata wa aatu zakaat alladina yuqiimuuna salaata wa ñëw na lu bëri ci alxuraan suñu borom ni da leen taxawal da leen te yonte bi alayhi salaatu wasalaam bi demee ci rañaan ga ci la ko borom bi subhaanahu wa jox julli ci njalbeen nag Euh, juróom fukki julli la woon cinquante ci bis bi waaye yonente bi alayhi salaatu saa bu wàccee ba dajeg musa Moussa ni ko delluwaata ci sa borom nga wax mu wàññil la ko ndaxte jàpp naa ni day sa saw xeet duñ mën a maanaam dékku loolu mu dem di ko wàññi di ko wàññi ba mu des juróom bi mu ñëwee wax ko Moussa teewut Moussa def ni ko demal nga laaj ko demal ñaan sa borom wàññi juróom ci bis bi waaye teewut def ni ko demal nga laaj ko yonent bi alayhi salaam ni ko rus naa delluwaat ci sama borom ni ko ñaan mu may wàññil lii waaye nag suñu borom donte daa wàññi limu julli waaye yool bi ba tey yoolu juróom fukki julli la maanaam ku julli ñaar juróomi julli suñu borom dalay fay yoolu ku julli cinquante julli ci bis bi kon taxawal julli dafa bokk ci ponki dafa bokk ci ponk yi silaam yi dafa bokk ci ponk silaam yi lépp lu ñu nag ab ponk silaam la ku ko màbb màbb nga diine ku ko bàyyi dañu lay jàppee ab yéeféer te loolu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci boroom xam-xam nañ ci ne képp koo xam ne bàyyi nga benn ponk ci juróomi ponk yi kooku dootu na dootuñu la jàppee ab ab jullit képp koo xam ni bàyyi nga julli borom xam-xam yi nee nañ kooku dees ñu ko jàppee ab jullit waaye nag daa am daa am teqale am ñoo xam ni seen bàyyi julli duni dañoo weddi julli du dañoo weddi julli waaye xëy na dañoo tayal rek ba ñu julli loolu am na ci ay atte yoo xam ni Cheikh Ahmadou sax wax na ko ci tasawudu si xaar ni kooku dañ koy néggandiku dañ koy néggandiku ba ci mujjanteelu muxtaar mi ba ci mujjanteelu euh, muxtaar mi muxtaar mi wala ba ci mujjanteelu muxtaar buñ ba ba noppi xaar ba julli gi des lu dul maanaam nit ki yamoo maanaam ba jëf yu mujj ci ci ci julli gi daal buñ ko digalee mu bañ bu boobaa ci lañ koy rey waaye dañ koy rey reyu jullit ci daruri waaw ba mujjanteelu daruri kon maanaam waxtu wi fa fa muy mu ba mujjanteelu daruri dañ koy néggadiku ba booba bu buñ ko diggalee julliwut ñu rey ko waaye nag dañ koy rey reyu jullit buñ ko reyee dinañ ko sang dinañ ko suul ci jullit ña waaye koo xam ne dafa weddi julli ni julli bokkut ci ponk lislaam wala boo julli suñu borom farataalu ko tax mu bàyyi ko kooku moom dañ koy rey rey bu yéeféer maanaam kii dañuy jàpp ni diw mii ab yéeféer la ab yéeféer la bu ñu ko reyee kenn ko sang kenn du ko suul kenn ko jullee kenn ko suul tamit ci euh, armeelu armeelu jullit yi loolu la suñu boroom xam-xam yi wax ci mbiru ku bàyyi julli keneen ku bàyyi julli nag ngir leneen xëyri miraw yi mu ni danga gis ci jamono koo xam ni day bàyyi julli te kooku nee na li ko tax a bàyyi julli day mooy ni man damay liggéeyal sama sëriñ nee na kooku mi ngi mel ni kuy jaamu ab xërëm te loolu amul benn benn benn sikki sàkka moo tax amut benn lay ci bàyyi julli bàyyi julli amul lenn lu koy layal bàyyi julli amut lenn lenn lenn lu koy lu koy lu koy layal nit dana feebar ba toll ci foo xam ni sax du mën a bouger waaye naa ko julli ci sa xel kon nag julli amul leen lu koy amul leen lu koy layal nii dinañ toll ba ci aw xare sax suñu borom wàcc ay aaya ni leen boo leen tollee ci ab xare tiit xamoo leen def ni ngeen jullee ci anam wi kon julli amul lenn lu lu tax muy wàcc nit mu ni wa ita izakaati kon loolu mooy mbirum julli wa ita izakaati ak joxe azaka ak joxe azaka natt azaka suñ boroom moo ko moo ko digle ci alxuraan baatu zaka dafa jóge ci baatu zaka yësku zaka an mooy maanaam sell laata suñu boroom moo ni yonente bi alayhi salaam xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim tuzakkihim biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim suñ boroom moo ne yonent bi alayhi salaatu salaam na ngay jël ci ñoom sarax maanaam na ngay jël ci ñoom sarax ngir nga leen di mën a sellalee ci sarax googu sarax googu ci nga leen di sellalee moo tax azaka ñu koy tuddee azaka zaka moom maanaam dafa jóge ci sell ndaxte nit ki buy joxe azaka wala muy saraxe day dindi day setal ay bàkkaaram di ci sellal ruubam ak jëmmam azaka nag am na ay atteem yu bari yoo xam ni duñ ci mën a dugg di ko détaillé waaye mën nañ cee wax ni mën nañ cee wax ni bépp alal boo xam ne nit ki da koy denc di ko dundee da cee war génne azaka moo xam kee la mooy te mooy wurus ak xaalis wala bu dee jamono ji currency yi nga xam ne moom lañuy yor ak bu dee koo xam ne day sàmm euh, nag ak gileem ak xar ak béy yooyu yëpp dañ ciy génne asaka bu dee koo xam ne day bay tamit bépp mbay moo xam ne nit ki da koy mën na koo denc di ko dundee ci lu ci anam bu yàgg euh, kon euh, alquutul mu daxar xuut mooy loo xam nit ñi dañ koy dundee al muddaxar mooy loo xam dañ koy denc mën nañ koo denc ni ki gerte nit ki mën na koo denc ci mën na koo denc am magasin mu yàgg fa loolu dañ cee bëgg a génnee xeetu dund yi nga xam ni nit ki mënu koo denc nit ki mënu koo mënu koo denc yàgg nit ki nit bu yoree ci misaal ay mango wala yu mel noonu mënoo koo denc ci am magasin ba mu yàgg te mu te mu nëb wala dara kon asaka ni muy waree mooy azaka bu jotee bu matee nisaab nisaab mooy nit ki bu amee alal bam mu toll ci euh, ci benn euh, bu tollee ci benn lim dañ naan yow lii mat na nisaab loolu mooy charte bi ci njëkk beneen bi mooy mu am ci nit ki ak kon niñ ko waxee rek xeetu lépp li nga xam ne dañ ciy génnee azaka moo xam alal la moo xam mbay la moo xam ay jur la bu ci nekk am na nu ñuy nattee nisaabam bu ci nekk am na nu ñuy nattee nisaabam euh, bu dee mbiru bu dee mbay moom saabu mbay mi ñoree rek la la ciy génn asaka di war bu matee nisaab foofu moom duñ ci duñ ci duñ ci charte muy am xawul mais maanaam muy mat at wala lu mel noonu waaye bu dee yeneen yi nag am nañu ciy charte ci benn ci charte loolu maanaam mu mat at loolu rek ci gàttal waaye am na ay détails yu bari loolu mooy natt azaka moom tamit ci ponk yi la bokk maanaam nit ki daa war di natt azaka daa nag suñ jamono ji moom nduru na ni azaka ñu bari dese nañ koo fonk waaye nit ñi war nañ leen di fàttali ngir alal ji ñor yi <coughs> ñu koy xool ndax bu matee ci ñoom at ndax dinañ ko génneel azaka bi ci topp mooy xajjul bayt aji màkka aji màkka ci ponk lislaam yi la bokk ndaxte borom bi subhaanahu wa taala moo ko digle ci alquran walillahi ala nnaasi na ci nit ñi ñuy aj jëm ci néegam ba képp koo xam ni far fartaal na ko ci képp koo xam ni mën na faa dem maanaam àttan na yoon wa maanaam moo xam ci alal la wala boog yoon ba yoon ba nga xam ne moom lay jaar ngir dem aji yoon bu mucc la aj tamit am na ay àtteem yoo xam ne mënuñu cee mënuñu cee dugg wasaami ramadan ak woor weeru koor te mooy woor te mooy weer wi ñu nekk di ñaan borom subhanahu wa taala lépp luñ ci def ci ay yiw mu fulal ko te lépp luñ ci def ci ay njub te mu jëggal ñu ko te ñu ko toppee woor weeru koor ci farata yi la bokk nit ki tamit daa war a woor weeru koor niñ ko waxee tamit ci julli noonu la koy waxee ci koor amul benn ngànt buy tax nit ki bàyyi koor ak lu mu munti doon lu dul loo xam ne charia charia moo ko moo ko digle koor tamit bu weer wi terutee la koor di war ba keroog weeru euh, weeru weeru korite di di di di di feeñ ci bis yooyu woor ci daa war bis yooyu yëpp woor ci daa war woor tamit am na ay àtteem yoo xam ni euh, mënuñu ci dugg ni ko détaillé xëy na beneen yoon kenn ci suñu mbokk yi dina ko leeral détaillé ko loolu mooy xadis bi rawaaxul Buxaari yi wa muslim te mooy xadiisu abdullah ibnu omar bi nga xam ne day leeral juróomi ponk lislaam yi te mooy tudd baati seede yi taxawal julli natt azaka aj màkka ak woor weeru xadiis bi ci topp abdullah ibnu mas'ud moo ko nettali te mooy xadiis ñeenteel bi an abdullah ibni mas'ud radiallahu taala anhu qaala xaddatana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqu almasduq inna axadakum yujmacu xalquhu fi batni ummihi arbaciina yowman nutfa summa yakunu calaqatan misla dalik summa yakunu mudgatan misla dalik summa yursalu ilayhi almalak fa yanfuxu fihi ruux wa yu'maru bi arbaci kalimaat bi katbi risqihi wa camalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw saciid mu ni abdullah ibn mas'ud moo nettali ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nettali nañu woon ni te moom yonent bi mooy as-saadiqul masduuq mooy aju dëggu gi te mooy ku ñu dëggal gi mooy aji dëggu gi ci lépp loo xam ne da wax te mooy tamit ki nga xam ne dañ koy dëggal ci lépp lu mu wax mu ne inna ahadakum yujmau xalquhu fi batni ummihi arbaina yowman nutfa muy naka kenn ci yéen day ab mbindam ci biir biiru ndeyam dinañ ko dajale ci lu tolloog ñeent fukki fan quarante jours nga xam ne ci ñeent fukki fan yooyu yépp nut fa lay nekk toq suma niw lay nekk nut fa summa yakunu alaqatan misla dalik topp mu nekk alaqa alaqa te mooy euh, dogub yàpp misla daalika kem loolu maanaam kem ñeent fukki fan yooyu quarante jours yooyu yeneen quarante jours mais maanaam day nekk ci quarante jours yu njëkki toqus ma niw ginnaaw bi mu nekk donjub yàpp yeneen quarante jours summa yaquunu mudghatan misla daalika ginnaaw bi xalaqatan mooy lumbub deret alaqa mooy lu mbub deret su ma yakunu muduxatan ginnaaw bi nekk mu nekk dogub yàpp muduxa mooy dogub yàpp misla dalika kem loolee kem loolee maanaam suñ borom buy bind nit ki ci biir biiru yaayam ñeent fukki fan yu njëkk yi day doon doqus ma niw bu ñeent fukki fan yooyu jàllee mu doon lumbub deret mu doon lumbub deret bu ñeent yeen bu ñeen fukki fan yooyu tamit jàllee mu doon euh, donjub yàpp mu doon donjub yàpp ginnaaw bi nag ci la suñu boroom di ko di ci yónnee ab malaaka summa yursalu ilayhi l malak suñu boroom day yónni ab malaaka fa yanfuxu fiihi ruux mu wal ci ruu bi wa yu umaru bi arba'i kalimaat te digal ko mu bind ñeenti mbir mu bindal ko ñeenti mbir bi kat bi yi ci bind aw wërsëgam wa amalihi ak ay jëfam wa ajalihi ak àppam wa shaqiyun aw sa'id wala ndax ku texe lay doon ndax ku texe di lay doon wala ku texe lay doon euh, foofu lañ fiy jànge conjugué next euh, story bi que doo def ci anglais pour mbokk fexe ba ci si mbokk ko defee rek dogu njëkk bi daf ñu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci leeral anam gi nga xam ne noonu la borom bi subhaanahu wa taala sàkkee nit ñi buñ nekkee ci seen biiru ci seen biiru yaay xadis bi nag bokk na ci atte yi nga xam ne dañ ko ciy tibbee borom xam-xam mooy atte li ñuy wax avorté maanaam borom xam-xam yi fii dañ fay déggee ni ñetti juróom fukki ah, bis ci njëkk yi te boo ko dajalee day nekk cent vingt jours maanaam cent vingt jours yi njëkk yi. Hmm? téeméer ak ñaar fukk. waaw téeméer ñaar fukki bi si njëkk yi suñ boroom day defar maanaam janin bi janin ni koy waxee ci wolof janin. janin waaw janin koy fàtte. jëniñ te xamuñu koy wax ci wolof waaye mooy mooy li nekk ci biiru ci biiru ci biiru euh, ndey ji rek di li maanaam suñu borom li muy li muy sàkk nit ki daal nit ki maanaam cent vingt jours yi njëkki suñ boroom maanaam janin bi du dund maanaam jëmmi janin bi du dund maanaam suñ boroom daa nekk di ko sàkk rek di ko defar di ko di ko di ko sàkk noonu waaye dundagul waaye cent vingt jours yu njëkk yi bu weesoo rek ci la suñ borom di yónni malaaka mi mu wal ci ruur bi maanaam ci jamono jooju la janin bi di tàmbalee dund nee nañ segam loolu noonu lañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxee kon ki nga xam ni day avorté nee nañ li jiitu cent vingt jours yi nga xam ni li nekk ci biiram tàmbaleegu dund foofu dina dagan mu avorté ndaxte bu avorté rek euh, rayut rayut ab bakkan bu avorté kon rayut ab bakkan waaye nag cent vingt jours yooyu bu weesoo ni ñu ko yonente bi alei salatu salaam waxee malaaka mi day walla roo ci biir janin bi mu tàmbalee dund bu xësee ba tàmbalee dund nag nit ki amatul droit avorté ndaxte bu boobaa day rey aw bakkan bu boobaa day rey aw bakkan euh, soxna laaj ndax bu fekkee nit ki daa avorté ci lu njëkk cent vingt jours yi njëkk yi ndax daa war a am sabab lu ko waral ndax daa war a am sabab am na yenn borom xam-xam yoo xam ni dañuy wax loolu dañ naan nit ki daa war a am sabab maanaam daa war a am loo xam ni moo tax mu koy def warut tëb tëb tëb rek def ko waaye niñ ko waxee bu fekkee nit ki li njëkk cent jours yu njëkk yi bu fekkee dafa avorté dañ naan diw rayut ab bakkan bu fekkee reyut ab bakkaar nag benn bakkaar du ko ci topp clé borom bu yónnee malaaka bi da koy digal mu wal ci biir jëriñ wi ruu gi topp mu digal ko mu bindal ko juróom euh, ñeenti mbir ñeenti mbir te mooy da koy bindal Euh, wërsëgam maanaam lépp loo xam ni nit ki nar na ko jëriñoo ci dundam borom subhaanahu wa taala dag koy bindal am na yenn borom yu ni dag koy bindal ci jëbi ci jëbi la koy bind am na ñoo xam ne nañ ci loxo ndeyjooram la koy bind moo tax dangay gis ay ay gisaanekat lu ci ëpp duñ lay seetal dina tàll sa loxo wal ñu xool sa jëb tàll sa loxo kon def ko ñoo xam ne nañ loolu moo tax gisaanekat yi di def loolu parce que bu malaaka bi ñëwee di bind wërsëgu nit ki wala ay jëfam wala li ko yàlla dara dogalal du koy bind ci jëwam am ñu du koy bind ci ci loxo wërsëg mooy lépp loo xam ni nit ki dana ko jariñoo ci dundam ak lu mu munti doon lépp loo xam ne da koy jariñoo moo xam lu muy sol la wala muy lekk la wala muy naan la wala muy xenc wala muy gis lépp loo xam ne dina ko jariñoo rek ci dundam dañ naan lii ab wërsëgam la noonu la ko boroom xam-xamu ahlu sunna yi leerale mu'tazila yi dañ naan wërsëg mooy lépp loo xam ne nit ki moom na ko même bu ko jariñoo wut moom na ko ci misaal nit ki bu yoroon këram moo moom kër gi waaye dëkkul ci biir kër gi dañ naan kër gi war wërsëgam la ka ca dëkk nag kër gi du war wërsëgam da caa dëkk noonu rek waaye kër gi du war wërsëgam bu dee ahlu sunna dañ naan ki ko jariñoo la la la kooku kooku wërsëgam ko jariñoo maanaam ka dëkk ci biir kër ga di jariñoo kër ga di fa dëkk kooku lañ naan kii nii kër gi wërsëgam la kër gi wërsëgam la maanaam boo xoolee li waa ahlu sunna wax ak li la yi di wax daanaka benn la lu dul ni waa ahlu sunna li ñuy wax moo gën a moo gën a général moo gën a général ndaxte nit ki lim moom wër la waaye tamit lam jariñoo te moom ko tamit wërsëgam la mu'tazila dañ naan nit ki la moom rek mooy wërsëgam lam jël jariñoo ko te du te moomu ko du wërsëgam jël jariñoo ko te moomu ko du wërsëgam moo tax waa ahlu sunna dañ naan nit ki bu sàccoon sax jariñoo ko wërsëgam la mu'tazila nit ki bu sàccee jariñoo ko lam jariñoo du wërsëgam da koo sàcc waaye du wërsëgam mu ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu borom subhaanahu yónnee malaaka bi da koy bindal wërsëgam maanaam lépp loo xam ni nar na ko euh, nar na ko jariñoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam tamit nee yonent bi alayhi salaatu salaam bi nee na um, inna ruuxa alqudus nafasa fi rawci anna nafsan lan tamuuta xatta tastakmila risqaha fattaqu llaha wa ajmilu fi talab yonent bi alayhi salaam nee na ruuxu alqudus daf maa dee ni ma benn bakkan du faatu mu ko lu dul ni matal na wërsëgam kon nag da ngay ragal yàlla te boo leen di sàkku na ngeen ko sàkku ci anam bu rafet boo leen di sàkku wërsëg na ngeen ko sàkku ci anam bu rafet moo tax borom subhaanahu wa taala lépp loo xam ne bind na ko jàmbi ci ab wërsëgam rek mbala moo faatu dana ko matale lépp loo xam ne jëriñoowu ko na xam ne rek borom subhaanahu wa taala bindul woon ni loolu day doon wërsëgam waa amalihi ak ay jëfam moo xam ay jëf yu baax la moo xam ay jëf yu bon la lépp borom bi subhaanahu wa taala bindal ko ba noppi wa ajalihi ak àppam mooy maanaam ñaata ñaata at wala boog ban diir lay toog ci ci ci biir ci àdduna am na ñoo xam ni maanaam seen dund yàggut mën nañoo juddu rek faatu am ñoo xam ne mën nañoo am at wala ñaari at am ñoo xam ne dañuy digg doomu mooy tamit salaam ne na Euh, sittiina wa sab'iin yonent bi salaam nee na sama umma sama xeet ñoom seen dund ci diggante soixante ak soixante-dix la maanaam soixante ak soixante-dix dafay digg doomu am na ñoo xam ne dañuy gudd fan lool <coughs> dañuy àgg ba téeméeri at wala sax lu ko ëpp ku nekk rek borom bi subhaanahu wa taala moo la bindaloon moo la bindaloon sa diir sa àpp wa shaqiyun aw sa'iid wala ndax diw mii ku texee lay doon wala ku texee di lay doon lan mooy mujjam ndax ku texee lay doon wala ku texee di lay doon loolu lépp suñu borom bind na ko ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral aw mbir moo xam ne dafa jëm ci loolu ci mujjub nit ñi mu ni fa wallahi alladi laa ilaha gayruhu inna ahadakum la yacmalu bi camali ahli aljanna xata ma yakunu baynahu wa baynaha illa diraa fa yasbiqu calayhi alkitaab fa yacmalu bi camali ahli annaar fa yadxulaha wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli aljanna la uh, yamalu bi amali ahli annaar xata ma yakunu baynahu wa baynaha illa diraa fa yasbiqu alayhi alkitab fa mu ni waat naa ci yàlla mi nga xam ni amul benn buur bu dul moom mu ni kenn ci yende dina jëf jëfinite àjjana ba nga xam ni la dox digganteem ak àjjana du toll lu dul ab xasab xasab mooy lii du tolloo lu dul ab xasab ab téereem jiitu ko mu tàmbalee jëf jëfi waa safara far dugg sa safara mu ni kenn ci yéen tamit dina jëf jëfi nitu aljana dina jëf jëfi niti safara mu dem ba ba nga xam ne li ko li ko li dox digganteem ak euh, safara du lenn lu dul ab xasab ab téereem jiitu ko mu tàmbalee jëf jëfi nitu aljana dugg aljana loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ciy leeral ndogal ni borom subhaanahu wa lépp loo xam ne nar naa xew ak mujjub nit ki ak ay jëfam loolu lépp borom subhaanahu wa dogal na ko ba noppi moo tax am na ci benn xadis yonent bi alayhi salaam ni innamal amaalu bil xawaatim jëf yépp mi ngi ci mujj ga maanaam mujj mi ngi ci mujj ga xadis bi nag dog bii li ñu koy déggee mooy ni am na ci beneen riwaaya boo xam ne yonent bi alayhi salaam daf ni fii maa yabdu linnaas inna ahadakum la yaamalu bi amali ahli jannati fii maa yabdu linnaas kenn ci yéen dina jëf jëfinite àjjana ci li nga xam ne moo feeñte nit ñi nit ñi li ñuy gis mooy diw mii day mi ngi jëf jëfinite àjjana waaye te fekk ci biir waaw waxoo min naar inna ahadakum la yacmalu bi amali ahli aljannati fii ma yabdu linnaasi wa huwa min annaar wa huwa fi nnaar wala aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam ni kenn ci yéen dina jëf jëfinit nit ci liy feeñ ci nit ñi ba nit ñi buñ ko xoolee rek jàpp ni diw moom mu ngi jëf jëfinit nit te fekk na yoo safara mujj yàlla nañu ci yàlla musal yàlla nañu ci yàlla moo tax ah, yonte bi alayhi salaatu wa salaam fii jéemu euh, duñ ci déggee ni borom bi subhaanahu wa taala dafay war ab jaamam maanaam day seetaan aw jaamam di jëf jëfi nitu aljana di jëf jëfi nitu aljana ba desee ko tuuti gi dugg aljana rek suñu borom suñu borom war ko dugal ko biir safara borom xam-xam yépp nee nañ borom bi subhaanahu wa taala loolu yërmandeem weesu na foofu suñ borom maandoom weesu na foofu yërmandeem tamit weesu na foofu waaye xadis bi ni ñu koy déggee wala wax ji ni ñu koy déggee mooy ni nit ki ci li nit ñi ci li feeñ ci nit ñi mooy ni diw mi de day jëf jëfi jëfi àjjana waaye ci biir la muy jëf te yàlla gën a xam la muy jëf jëfi nit waa safara lay jëf mu dem nag ba nit ñu yaakaar ni kii moom li ko desee ci mu dugg aljana tuuti rek moo ko desee ci mu dugg aljana fa téerim jiitu ko yàlla dogal ci moom mu dugg mu def jëfi nitu safara dugg safara nit ki doon tamit nit ki maa yom dawlin naas ci li nga xam ne moo fenc ni ñu ba nit ñëpp yaakaar ne kii moom nit ku bon la bu dee safar lay jëm suñu borom dogal ci moom mu tuub di jëf jëfinitu nitu aljana ba far dugg aljana kon loolu mooy xadis bi xadis bi Buxaari yi moo ko nettali ak muslim léegi ma yem fi wala Hmm? waaw bu dee da koy day summarize ci àll. waaw loolu pour mbokk. Uh, so, yeah, Rahim, Alhamdulillah, I'm So we were talking about uh, the hadith of the Prophet wasallam in the month of Ramadan. So we said that, um, uh, the testimony saying that La ilaha illallah means that there is no God worthy of worship besides Allah. And some people they say that there is no God except Allah. But the the Arabic um, phrase La ilaha is um, in the genius uh, in the genius of you know deity or ilah. if you say there is no God, that means that there is nothing being worshipped except except Allah. But the right phrase is to say there is no God worthy of being worshipped except God because there are other things that people worship. Some people they worship the sun, some people they worship human beings, some people they worship, you know, stones and, and idols and stuff like that. So La ilaha illallah doesn't necessarily mean there is no God except Allah. because the word God in Arabic ilah and even it's in it's in the Quran the word God can be feminine and it can also be plural you know goddess and gods you know aliha and ilaha because uh, in Arabic anything that is worship can be called a god ilah and even in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala mentions it the idols he, he calls it ilah and aliha So saying that there is no God except Allah uh, would mean that, only Allah is God, only Allah is worshipped. But technically, there are other things that are being worshipped, even though they're not God, they're false still worshipped. the right meaning of La ilaha illallah is there is no God worthy of being worshipped except Allah. Or saying that there is no God that should be worshipped except uh, except God. There is no true God except Allah, and that Muhammad is his uh, slave and his messenger. And establishing the prayer, and we said that leaving the prayer is kufr, uh, is a form of disbelief. Disbelief. If somebody is, if somebody doesn't establish prayer, that person cannot be considered you know, a Muslim, and giving zakah. Giving zakah, and we said that um, the word zakah come from zakah, which means purification, because Allah subhanahu wa taala told the Prophet sallallahu alaihi wasallam to take from their wealth sadaqat, charity, so that you can purify them with with that charity. So that's why the word zakah is uh, so that's why the uh, zakah is called zakah. because it comes from that word zakah, which means purification, and performing the pilgrimage to to to Mecca, and also fasting, fasting the month of uh, the month of Ramadan, and we also to, uh, talked about the the fourth hadith. And uh, this hadith is narrated by Abdullah ibn Mas'ud and uh, he said that the Prophet ﷺ said that one of you, um, the creation is being uh, made in the womb of their mother um, in 40 days as a nutfa, being a nutfa. And nutfa is a drop of sperm. And after that, for another 40 days, it becomes a alaq, which is uh, like blood. ثم يكون مضغة مثل ذلك and then it becomes uh, a piece of flesh a piece of flesh for another 40, 40, 40 days and then Allah subhanahu wa ta'ala will send a an angel and the angel will blow the spirit or the ruh into the fetus and then Allah subhanahu wa ta'ala would order the the uh, the angel to write four things its sustenance and its deeds and its um, you know deadline or the the time spent that they will they will live on earth and whether they will become you know uh, you know uh, successful I, I don't want to say successful successful but um, shaqiyun or sa'id, whether they will become uh, people of salvation or people who will be doomed. So one of the things that the scholars say about this part of the hadith is that it is permissible uh, for somebody to abort when uh, before the first uh, 120 days because the first three uh, uh, part is uh, 40, 40 days nutfa, a piece of uh, a drop of sperm, and another 40 days uh, blood, and another 40 days a piece of flesh. So together it's 120 days. And then after that, Allah subhanahu wa ta'ala will order, will send the, uh, the angel to blow the spirit into the uh, the fetus and it becomes and it living right so they say before that if somebody um, the baby you just aborting a piece of flesh it's not not alive so some of them they say that in that time span it's permissible to undergo abortion but after that it's not permissible because you're killing alive, something like the baby is is, um, is alive. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala will order the uh, the angel to blow into the fetus um, the spirit and write four things for for that person its sustenance and uh, their deeds like everything that they will do and their time span that they will live on earth and whether they will become people of salvation or they will be they will be doomed. And then the Prophet ﷺ said that I swear by Allah uh, that one of you would do the deeds of the people of paradise until there is uh, an arm length between that between them and paradise and then they will start doing the deeds of the people of hellfire, and then they will enter hellfire. And also the opposite. One of you might do the, the deeds of the people of hellfire until there is nothing but a but an arm length between them and hellfire, and then they will start doing the deeds of the people of Jannah, and they will enter Jannah. And we said that to understand that hadith, this part of the hadith, the Prophet ﷺ also said in another uh, version that um, one of you would do the deeds of the people of Jannah what appears to the people. You the in one person is doing the deeds of the people of paradise, but inwardly, they're not doing the deeds of the people of paradise. Hmm? So what do you mean by like the intention? Yeah, the intention. Maybe the intention is not right, or maybe they don't even believe in it. Or like for example the hypocrites, mm-hmm. they might do like the deeds of the people of Jannah or appear to be Muslims, but inwardly they don't believe in what they're doing. So, uh, people might think, oh, this person, mashallah, is a very good Muslim or whatever, and, or they're doing very good deeds. And then towards the end of their life, they change or they start doing the deeds of the people of hellfire and then they enter hellfire. So that's why the scholars they say that Allah subhanahu wa ta'ala is not unjust Allah subhanahu wa ta'ala servant. because Allah subhanahu wa ta'ala would not see somebody, you know, doing good deeds then Allah subhanahu wa ta'ala, you know, leaves them allow them to do bad deeds and enter hellfire. Allah subhanahu more merciful than that. they say to understand that hadith, this hadith, this part of the hadith, to put it to contextualize it with that other hadith in which the Prophet ﷺ said, Fima yamdu nas in what appears to the people. Yeah, so that was the two hadiths that we were talking about. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين